sa frère am combat bu mag di ko waaj diggante mag doomu Jalaaw moo gisee làmb waa xam nga tey euh, sama doom ndey la sama xarit la sama lépp la wallahi du lu mu toog moom xam na sama jikko bëgg ma géej fonk nañ ñun mbëru géejewaay ñu jël boobu cër boobu tam delloo ko moom. kon donc ni comme moom ak booy xaw man turam boobu moom xam nga moom dafa xaw a kii quoi maa ngi lay jégal nag mais nag moom xam na ne moom bés bi du bésam kese bés nit ñi su leen bokk parce que nit ñi taxaw dañ koy delloo bor bi te ci gàttu ni yàlla ñu ngi ñaan yàlla suñu bor bi yàlla may ko ndam ndax xolam dafa rafet ma damay cité nit fleur de barki yàlla Muhammad xol bee rafet moo tax ci bésam dañ ciy sonn ñun yàlla na ko yàlla fay xolam te ci bés boobu noonu li nga xam ne am na bés. dafa mel ni Lac de Guiers 2 moo am combat parce que ñaari doomu ndayam xam naa ne am nañ combat muy Boy Niang numéro 2. ak euh, nu mu tudd Alioune waaw xam nga boo ne Alioune Seye de ëmb na lépp. junni la ak 5000. mu ngi noonu benn kooku moom moo nekk fii sori jaay waxam parce que fi ñu la toog di wax fii ba suba du jeex kon dama koy tegee à côté kooku kooku yàlla nag laa koy bàyyeel ndax tey lekk ci man fu ma toog dama koy wax moom moo ko def ci man barki Seydina Mohamed te yàlla na ko yàlla fay xolam bu fekkee ndam gese la maa koy joxe du fa sax nekk di ŋaang bay léewtoo day ñëw jàpp daan dem ñibbi. yal na ko yàlla may ndam ci barki Seydina Mohamed Aliou Seye 2 yal na ko yàlla may ndam ci barki Seydina Mohamed sama doom day Maguette Seck nag moom a bëri. kanal non du ma ko lu tax ma ko fi doog di moom moo tax ma koy daw sama doom day nag xam na ma borom dina liggéey ba mel ni xeer. kii dina liggéey ba mel ni xeer. lu leer laa la wax en tout am na jom bëgg na ko gëm na ko. yal na ko yàlla fal cet yàlla bàyyi ko ak njabootam bàyyi ko ñëpp fan sam yeeg yëpp te incha allah bu neexee yàlla ci kàttanu yàlla ñu ngi ñaan yàlla yal na ko yàlla may ndam ci barke Seydina Mohamed. mais Lac mënuñoo waxtaan ba pare te jóge waxuñu ci làmb grand contre petit dafa xew noo gisee grand contre petit bi ci làmb. waaw dafa am grand contre yoo xamante ne tey ñun bañuñu grand contre petit. man gañu bañu ma loolu. ndax bëri nga ko. waaw ndax bëri naa ko. Mhm. keneen ak keneen bañu mais dafa am grand contre petit yoo xamante il faut ñu prouver. pour nga mën a accepter lii ne grand contre petit la mais doo tëb tëb rek nee na bisimilah rahmaani rahim am foo xam ne jaaroo fa ñu bëgg def grand contre petit non loolu d'accord ma ci dañuy prouver. comme yu ñor. waaw yu ñor dëgg. nga prouver fa wane sa bopp foofu duñ ne grand contre petit nag ñun wax grand contre petit amateur ak ñi nga xam ne mooy axlu làmb ñun ne grand contre dañuy xam ne ndax lii jaadoo wala jaaduwul mais am na grand mais grand contre prouvé boo prouvé ñu wan la lépp. man damaa bëgg nga wax ma sa combat yow ak Gris Bordeaux bëgg nga combat bi mu taxaw waaw wala déet parce que dama xamul yaa Gris Bordeaux donc yéen a fi nekk seul mbër boo xamante ni dajewoo leen seen biir te combat bi combat bu askan bi bëgg la gaa grand contre petit neex na mais diggante la de Guiers ak Gris Bordeaux ñu tëj saako yi rek tëj enceinte yi loolu lag noo ko gis kooku ragal la. ba mu ko bëggee ba léegi xool na ma ko bëggee ba léegi bu may tegg di tegg di mu xam ne moo xam ne pëtëx na. mu retourné encore naan la dëgër de xomalat. <laughs> kii dinaa ko yenn 600 volts. ka xam nga leen la gis naa état de forme bi nga yor macha allah gis naa li nga taxaw daa mel ni doo moromu gone nag. non man bokkuma xale yi. déedéet xale bu yaakaar ci mën nga bëgg a jaaree pour am jaar jàll yaa ngi solo su bopp bu fii seetuwaat leen beneen yoon. ndax dama maye centimètre. centimètre du ma ko maye. ana <laughs> maa ngi nuyu en passant maa ngi koy bëgg sa xol boobu. temps yi moom da xew moom allah. temps yi moom da xew. maa ngi koy nuyu. di nuyu ñëpp ah. bàyyi ma kenn waa géej waay waa Gunaas. yaa ngi dégg sama doom nday bu war a bëree nu tur sax euh, booy biram bàqu léegi-léegi ah, Baye Ndiaye waaw ah, maa ngi koy ñaanal ma Ndiaye maa ngi koy ñaanal yàlla na ko yàlla may ndam ci barki Seydina Mouhamed di nuyu waa Gunaas waa Géejawaay waa FIGMIC waa cité des enseignants fi ma dëkk nuyu fépp foo xam ne la dëggee de fan sab nekk na fa maa ngi koy nuyu di ko bëggee ah du nuyu sama xarit sama doomu nday ñu bu ndaw mu ngi nii doomu Abdou Diouf la sama xarit la sama waale sama lépp la. yow xale yëpp sa xarit la. ñu ngi nii boo yaa ngi nii ñoom ñëpp. waaw doomu ko ngi nii ci ginnaaw. waaw maa ngi nuyu ñëpp bëgg ñëpp mais ñu ndaw moom sama gaañ la xoolal yéen laay wax la waa Sénégal. ku bëgg a yëngal sama xol rek bu laal kii. leer laa ne mais wuy ma madame soxna mbër metti na de madame moom xam naa boo jógee entraînement ñëw ak ci jabaru mbër loo koy digal ban conseil. waaw la. waaw mbër metti na trop. Euh, bu ñu waxante dëgg rek a ah, parce que tey mën nga jóge entraînement ñëw sonn xam la nekk kër ga. war a relax yooyu yëpp xam la nga ñëw coono gi wax ak moom am na nu muy waxee yow ba mooti yow mën nga gis sa mais yow yaay am compréhension boo xamante ne xam nga ne lii boo boo dalee ci entraînement bi rek boo ñuy àndal ak dal ànd ak xel. xam nga la parce que tamit jigéen dafa bàyyi kër yu bëri ñëw sëy la te yàlla tax kon nag jëmm jooju dañ koy jàpp te yàlla tax di ñaan yàlla yàlla na yàlla dëgëral ànd gi. yàlla boole ci njaboot gu barke képp ku amul jabar yàlla may la soxna ci seddaay gi métti na trop te dégg naa gars yi seddaay gi day xaraay nopp <laughs> day xaraay tuñ day xaraay wéy day te baabu tànk <laughs> tey ngeen di dootu na nga defar sale boo gisee wasaare làmb ci làmb non yow wasaare nga lépp man déggoo ma la waaw wasaare làmb yéen laay waxal kii moom jëmm ji man ñi meewuma ko waaye wasaare na lépp waaye jaajëf la dëgër de grand suma grand frère Abdou Diouf ngi nele Abdou Diouf Diouf la grand sa mi suma grand Abdou Diouf la grand lee xam fekke lee xam fekke États-Unis bëggoon naa ñëw waaw ñëwal mbër. ñëwal ñu lay xaar waaw man yàgg naa am na quatre ngi nii di entraîné mais moom li war mooy. yow laa wax Boy Niang dina ñëw ci yow. waaw man la état bi état bi loolu la. man ma ci état maa ci leneen quoi. néew ma ci état maa ngi entraîné pour la forme rek quoi. waaw bëgg a bàyyi bëri. waaw non xam nga rek xam nga lamb ji dafa doy waar. xam nga li ma wax Reug Reug maa ko maa ko victoire. li ma def ci làmb def ko ci làmb champion ma daan daanu ko buñ bëggee ma ñëwaat ci làmb nañ ma jox rek rek ma defal ko bagage suñ ma ko joxul nag ma nekk seeti leneen waaw Reug Reug da ko xeeb daal yow da nga jàpp ne Reug Reug benn voyage nga koy def. ko joxee ma jàngal ko bëre la moo gënoon ma Malang Ndiaye moo gënoon daadere te dama leen jàpp ñoom ñoom def leen benn voyage Reug Reug champion la dafa naqul dafa naqari am adversaire ay luur lay bëreel daan na Elton daan euh, booy bi ne Fass ngir de mais na ñëw ma dawal ko bagage. arène nationale gis nga combat boobu. na ñëw ma dawal ko bagage. bu ñëwee yow nga mu def ngir de du la ko def. moo ma indi ci làmb suñ ko tëggee ma ñëw bëre suñ ko tëggul ma dem nekk ci leneen fekk waaw. nee na combat bu saf sàpp la bëgg Reug Reug. te jàpp na ni yéen ñii ay nooy neex yoon moom Bombardier rek la gis. déggoo man la buñ ko tëggee ma bëre buñ ko tëggul ma seeti leneen waaw loolu su bëggee sax am naa partenaire yoo xam ne na ñëw ma boole ko ñoom ñu tëgg ko. waaw ñu tëgg làmb ji. foo ko bëgg bëree. fu mu nekk ma bëri ko su bëggee su bëggee fii ma bari ko su bëggee Europe ma bëri ko su bëggee Gambie fu mu bëgg ma bëri ak moom seen caaroy géej sax bu bëggee bu bëri ak moom foofu. waaw mais nag Abdou da ngaa gëj a génn ci làmb ñu bëri gisuñu la ci làmb man dama yaakaaroon sax dama nekk États-Unis rek toog fa. mais Abdou Diouf ni nga mel ci làmb ak fi la làmb teg da nga war di génn di yëngal ba gars xam ne Abdou mii la ñu yëngal fa mu newoon ma nga fa. non man fa ma newoon jógu fa jógu ma fa ba ma jàppanteeg lan la ngeen lan la ngeen xam ne laaj ko booy yi ma leen awa yoon man fi ma newoon ba léegi jógu ma fa boo gisee mu daan ma dama toog quatre ans bëriwu ma ñëw perte la paire mu profité ma daan ma mais man xam naa li nekk si man nekk si ñoom ñëpp moo tax ma ne làmb. dafa am dafa doy waar ñi war a bëre yow duñ bëre yow te boo amul ginnaaw boo amul ginnaaw duñ la tëgg moo tax man Reug Reug moo may delloo si làmb su ñëwee tëgg man ak moom ma defal ko bagage. non mais ñaar lay tegal boo boo jëlee bu Reug nangoo yaa ak moom bu neex la bu Reug Reug nangoo nga jël Malick Niang comme ñoom ñaar ñëpp dañ leen fee bàyyi. ñoom ñaar ñëpp ku ñëw ma defal la bagage ñaar Malick Niang. Malick Niang Reug Reug ku ñëw Malick Niang deuxième position lay nekk mais Reug Reug man moo may daloo si làmb lu ko may déggoo man la su bëggee am naa partenaire yoo xam ne dañ koy tëgg du dëgg su bëggul man maa ngi ci leneen fii ak a an deux ans damay tëgg làmb. loo ko bëggee a def da nga ko bëgg a dóor ba mu daanu wala da nga bëgg a bëri moom daan ko Reug Reug. Reug kuy dem guerre doo wax sa arme mais bu bis ba nañ xam lan laay def lan laa lan laa koy def. waaw mais du ma wax li ma koy def. état de forme bi ma la gis doo moom macha allah fa tabaarakalla laaw la cat yaa ngi ci état de forme bu garaaw. seddaay bi ngay ñaq lekk lekk bu baax la fi mu toll nii sama soxla di ma toppatoo yes sa mais xam nga entraîné pour la forme lay def mais rëy nag bu ma joxee moom ma defal ko bagage. waaw di la nag suma rak booy ñaa yàlla may ko ndam. ki mu jël doomu jalaaw. waa no booy ñaa kenn mënu. parce que kuy jàppanteeg booy yi kuy jàppanteeg di jàppanteeg Lac de Guiers di jàppante Alioune Seye comprendre nga di ma yanu kii dañuy ànd din mu may yanu xam nga di yanu Elton di sëf Balla kon xam nga ni booy boobu waru ko jaaxal bu amee jom xama maanaam def fula def fayda xama nga sax mais ama làmb maanaam doo jël lépp yoroo ko sa bopp du noonu waaw bu jëlee lim ku nekk lim moom mu jox ko làmb ju taxaw ak booy bi dina ko jàpp duma ko daan ko. yaa ngi ci ginnaaw. non moom chaque jour yàlla moo def man yàlla moom boole moom. su ma rak la ku réew la yarawut nag mais yàlla moo def dafa maa bëggal boppam xama chaque jour mi ngi sama kër maanaam duñ duñu xama sama dara ump ko sama daraam ump ko parce que suma booy la daf ma bëgg te yàlla tax du dëgg mais nag dafa xaw a ko mais bu defee fula def fayda moo mën booy bi da koy duma daan ko Abdou noo gisee wasaare làmb jël nañ la États-Unis jël la Sénégal noo leen gisee. waa xam nga wasaare man su may xarit lañ wasaare may xarit lañ def naa ni man may premier mbër bu ñu si njëkk a jël États-Unis waaw bi ñuy ñëw maa leen booleeg Aliou Seye 2 yàlla def ñu jëlaat ko xam nga waa ITM suma xarit la moom moo teewal foofu wasaare te New York kon maa ko koy nuyu di leen xamal ni wasaare ñu ci ginnaawam te dañu bëggal mu nekk lu mag lu mag a mag voilà. ok jaajëf waaw.